noo ngi njëkkee nuyoo bi ci mbokk taalibe yi ñu fekk mbokk taalibe yu baax yi di nuyu ñëpp te di leen siyaare di nuyu itam mboolem ñi nga xam ni noo ngi topp jotaay bi nga xam ni moom daan ay taalibe yu daje di waxtaane seenu sëriñ lañu laaj bi nga xam ne nag laaj nga ko mu jëm ci Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina mooy baat boo xam ni ku tudd Cheikh Ibra rek faaw nga toftal ko ci moom lañ ko miine baabul muridiina laaj nga nag laaj bu bu am solo ndax loolu moom ñëpp déggandoo nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina ñëpp a dégg boobu ñu koy toftal ci aw turam kuy am murid ku dul am murid kuy Baay Fall koo ko doonul koo tuddee maam Cheikh ni baabul muridiina koo laajoon kuy baabul muridiina itam mën na maam Cheikh Ibrahima Fall de lañ koy wooye kon soo laajee ba xam ndax baabul muridiina sëñ Tuubaa ko ko tudde ndax sëñ tubaa ko bind ndax sëñ tubaa ko ko wax wala ñoo sopp Cheikh Ibra rek tudde ko ko laaj la ku am solo boo xam ne wares na ko man a laaj bu fas tontu nag kenn suñu xam li ngay njëkk xam mooy hmm. baabul muridiina moom wax nañ ko ko waxuñ ko ko xool yëpp nangul nañ ko ko kon yàlla lijjanti na ba xol yëpp maasee nangu ne Cheikh Ibrahima Babou Mouridina te yàlla lu muy communiquer xol yi ba fexe ba xol yi nangu ko day ak dëgg ndax daa moom xol yi moo tax di ci def lu ko neex xol yi suñ borom a ciy tàbbal ay yëfam waaye du yëf yee jekk-jekk yëpp ko ndax wa man lam yajxanillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur léeri yàlla y roof ci ab xol te ku mu ko defalu doo ko am loolu da caa bokkul yëpp loo mbirum yàlla xol yi baabu muridiina bala maa ñëw ci ndax Sëriñ Tuubaa ko ko tuddeem tuddewu ko ndax moo ko bindam bind ko waaye njëkk a tontu ci baabul muridiina ba noppi mooy lan ndax boo nee baabul muridiina da boole ñaari baab baabu al muridiina baabu di firi bunt la porte bunt jaarukaay al muridiina di firi ñi ma yegg ci yàlla fas ci yéene jariñu ñi nga xam ne seen yitte mooy yàlla mooy almuridina soo boolee baaboog almuridina mu jox la kon buntu ñen yitte woo yàlla bëgg a jariñu ci moom bëgg a yegg ci moom hmm. loolu nag maqaamu mu rëy la daraja ju kawe la garaat bu màgg la moom baabul muridina ba noppi damay njëkk a ñëw ci baat boobu garaat boobu doog a ñëw ci lu ko booleeg Cheikh Ibra man ngaa wax sax ni garaat yi maqaama yi amul bu ci féete kaw baabul muridina amul bu ko ci féete kaw maam mboolem maqaam yëpp. Hmm. amul bu ca féete kaw baabul muridiina man ngaa wax loolu. lan moo tax ma wax ni mën ngaa wax ni garaat yëpp amul bu ci féete kaw baabul muridiina mooy jëmmi al muridiina la yàlla def mu féete kaw ci jàmm yi mooy ñi namm yàlla alxuraan dani nit ñëpp ñetti xaaj lañu xaaj bu njëkk bi mooy ñi nga xam ni seen iraadatu càddina rek la jëm. fa minkum man yuridu dunya suñ borom nag nee na loola solo sa bariwul ndax àdduna wamal mataahul xayaatu dunya ila mataahul xuróor nee na beneen xaaj bi nekk ci digg bi ñoo ngi nag ñu njëkk ñi ñoo ngi leen tudde xaamatu naas yi mooy daanaka lépp ci nit ñi ku ne mën nga caa bokk hmm. bi ci digg bi mooy ñi nga xam ne seen yitte weesu na àdduna waaye daal jëm alaaxira lu leen fa may place bu baax loolu alxuraan yi wa minkum man yuridu laaxirata loolu itam daraja ju rëy la am ca àjjana ya am ca leer ya ak yu mel noonu ak ca payoor yu baax ya baax na suñ borom nag ngeen na ñi féete kaw ci nit ñi wama aataytum min riban li turbu fii am boo amwaali naasi falaa yarboo hindallahi wama aataytum na sakkaatin turiduuna laa fa ulaika humul mudhifuun mooy ñi weesu àddina li alaaxire baax baax nu weesu ko seen bët ñu teg ko ci yàlla mooy nam mu jëmm yàlla bëgg àgg ci seen borom bëgg a jëriñu foofa ñooñu suñu borom nee na ñoo ñi féete kaw ci nit ñi ñoo ci féete kaw fa ulaaka mul mu dañu foon almuri diin yooyu yonent bi sax suñu borom daf koo wax ni yow soo dee far ci équipe boobu nga war a far ndax yow sunu fa daa weesu première division ak deuxième division hmm. déedéet sur football yi dana ci am koo xam ni capacité ak fi mu toll ci wàllu football da ko yóbbu ci day weesu nag ay deuxième division ak i troisième division lay fi bal Sadio réew ma mi fi defe naa ci première division ba la ne kooku weesu nag eh, deuxième division division troisième division la fa mu toll la yonent bi nag suñu borom da nekk fi nga toll na yow ci maqaama nga xam ne ñëpp ci yow la ñuy jëlee maqaama hmm. darajatul muxtaari saynu saalihin alayhi taslima ilahi kullahin yow moom boo amee équipe boo war a far ca almuridiina yàlla dafa faaj sa équipe ñoo ña nga doon seen capitaine ñi nga xam ne seen yitte yëpp jëm yàlla la te alxuraan ak ko wax hmm. wasbir nafsaka hmm. mahal lasina yabduhuuna rabbahum bilqadaati wal xasiyi yuriduuna wajhahu wala tax du xay naaka xanhum turiidu siinatal xayaati dunia suñ borom moo ne ko muñal sa bànneexi bakkan hmm. waaye yow day boo amee ñooy àndal di bokk ak ñoom na doon gaa ya nga xam ni seen yitte subaa ngoon guddeeg bëccëg mooy bëgg seen borom bëgg a yegg ca moom nam ma ko yittewoo kon ñooñu ñooy almuridiin ya. hmm. ñooñu ñooñu ñëpp fii te kaw kon ci nit ñi yaa ngi dégg ñi nga xam ne yàllaay seen yitte yaa ngi dégg kon la la kaw ci mbir ya ña féete kaw yor ko kan ni nag mooy seen buntu kooka lañ wax ne kon moo féete kaw ci maqaama ya na ma doon firi li tax mën na kon baabu muridina moo gën a ci maqaama yi barke sëriñ bi équipe bi nga xam yéen ko jiital moo kon kin tuddee ñoo na nag nga xam ne ñoo nam mu yàlla rek kay seen borom yàlla rek kay seen yitte lu dul jëm yàlla ji xeet nan loola lu loola nuru nuru lu rëy ndax lu dul yàlla day tuuti ci kanamu yàlla ndax yàlla ëpp lépp loolu nag moo waral ñooña nag nga xam ne seen yitte foofu la toll moo tax Sëñ Tuubaa def ko ñett ne ñett yooyu alxuraan wax muy ñi suufee ñeeg ñi ci digg beeg ñooñu kawe mooy diggante alhammu al ihtimaamu ak alhimmatu moo tax yoon wi ci himmatu la ko sos daf bi assemble bi himmati xam mooy ñi nga xam ne seen yitte weesul àddina moo tax suñu tubaab ne maakaana ci la ñuy dox nee na loolu résultat bi fa asaaruhu sulumaatun wa akdaarun wa axyaarun ay lëndëm lëndëm la rek ak i ndax ndax ak i yàqu waaye ñi ci digg bi nag ñi nga xam ne moom dëdmal nañ alaxira xam ni alaxira rek mooy kër gën ak noore yitte waaye ci digg bi lañ taxaw ñoom fa asaaruhu anwaaru moo tax mu ni ñoo ñoo nekk ci al ihtimaamu ñu njëkk ñi mooy al ihtimaamu Sëñ Tuubaa nee na maakaana li uxra fa asaaruhu anwaarun résultat bi ay leer la leer ya moo lay may kërug àjjana ak wàccuwaay yu baax la àjjana yu baax baax a kër yi nag yàllaa ko féete kaw moo tax Sëñ Tuubaa bi mu bi mu woowee dafa dafa daas suñu yitte hmm. daf nenu bu leen yitte woo àjjana na sàkkul naa leen ci yàlla kër yu kawe a hmm. asaluhu wa innahu l mannaanu nuuran biha tahlu lanal jinaan murit fi mu toll nii yitteem nekkee àjjana doonagu dara bu sax liñ ko woo moo tax léeg rek ma gis kuy kuy kuy kuy kuy kuy kii murit yi naan dañoo yombal àjjana nag nga ma ne murit ki ko bëggloo àjjana moo yàqu muritam bari ko ko yombal murit dafa war a am pëseef di ëpp àjjana murit bi la barke Sëriñ Tuubaa day def yàlla yàlla na la jëm yàlla ëpp àjjana àjjana gis yàlla dàq foofu àjjana lil la ci ne ahsanu husna wa ziyaadatun boobu jooxun joo may si naadiratun ila rabbiha naasiratun yaa ngi dégg sëñ Tuubaa nag nee alhimmatu ñoo ñooy ñan mu ni maa kaanat lillahi aw fillahi fa asaaruha fa asaaruha asraaru ñi nga xam ne seen yitte weesu na àdduna weesu na àllaaxira ñoo nekk ca himmatu ñooña jëmmi yàlla ak loo nekk ca biir yàlla loolaay seen yittee loola nag résultat ba mooy ay secret lu kenn mës ta xam eh. foofa luñ xamtikoon rek les fay jële oh. moo tax murit gi luñ xamtikoon rek yaa ngi dégg moo ciy am daa su ne guléet gis nga lu xóot loolu nga xam ne loolu mooy murit diin ña eh. nga xam ne seen bët foofa lañ ko teg seen yitte foofa la ne kan ni nag mooy tax lañ bëgg foofa buñ jaarul ci moom duñ ko am kooka ëpp ma xam ñëpp moo tax baabul murit diina lu toll ni moom monsieur su ko dégg eh. daa ndax garaat ñu bari dañ koy wax Seydou Ibra baabul muridiina waaye a taxaw ci njëkk laa wax baabul muridiina hmm. bi ni mu toll ko lim doon nga xam ni amul garaat bu wàcc ci lislaam baa ci mbirum yàlla bu ma sa toll noonu ndax ñi ëpp ci lislaam ëpp ci gaa yi yàlla yi mooy al muridiin alxuraan na ko wax borom yitte yooyu ñoo gën a kawe yitte ci yàlla ñoo ñoo gënal yàlla ñépp ndax ñooñu yàlla lañ bëgg bëgg la tunu yàlla dañ ko bëgg te naa ngi la yëgal dara de bëggal yàlla nag moo gën a yomb bu bëgg ko am na ñu bari ñoo xam ne ñoo bëggal yàlla mooy moo tax ñu koy jàmm àjjana jeeg xéewal yeeg yii waaye suñu demoon ba mu war leen ni saa wala lañ jëm dañu bàyyi jàmm parce que dañ naan jàmm lakk jàmmul lakk naafal rek ne ci yëf yi da ngi dégg am na ñoo xam ne wër na leen fekkoon ne seenu jàmm yàlla yàlla dana leen du ma leen fay dara jaamu leen noonu rek dañ naan ah loolu dañ ci fekk comme dara duñ ko ci amee kon ñooñu bëgguñu yàlla dañ ko bëggal hmm. ña bëgg yàlla dëgg mooy almuridiin ñi nga xam ni xaaratuñu fay xaaratuñu àjjana xaaratunub yool jëmmi yàlla lan sopp loolu mooy al muridiina ñooñee nag kan sopp ak lan sopp ca moom la leen cay taxa jot kookaay baabul muridiina kon baabul muridiina xam nga ne dana daw moo tax Cheikh Ibra amul morom léegi nag kon xam nga baabul muridiina ba noppi léegi nag deuxième question bi kon ndax kon loolu ku ko def ak lu ko def mm-hmm. li may njëkk confirmer mooy Sëñ Tuubaa ku ko def sëñ Tuubaa ko wax itam moo ko bind itam sa problème dana am foofu ci wàllu bind gi la ñu ko wax xam nga am na sax ñu ni leetar bind na ko am yu ñu koy wax ba boole ca babu murid yi la jëm am ñu ne comme gisuñu leetar ba dalil boobu duna doy sañ nañ ko waaye dama la bëgg wax dara yàlla dana wax dara te du ko du ko du ko du ko bind waaye da koy wax max nan wa fax man wa ma jaasam am na wax yàlla joo xam ni ci max naa la ciw déggin ak ci aw firin waaye du ñëw nassan ci ab ab yax wakkat ban maanaam du doon loo xam ne dañ koy bind nii te yàlla koy wax loolu dama la ciy jox misaal dafa bari ci alquran amul ko werante ni rasulullahi salaa sallam mooy baabullahi buntub yàlla bi xam nga lu tax kenn du ko werante sëñ tubaab bind na ko sallimtu min al ahdahi turran mahal tija li rabbi wa baabullahi lam yàqu murtaja kooku kan la mu ne salaamun halal maahi lasi sah saha duja muhammadin almasmosi bin na si wal baxsi kon sëñ bi mooy buntub yàlla bi sa sëñ Tuubaa lu mu wax alxuraan la xam ba mu baabullahi amu ci baatub baabullahi buntub yàlla bi doo ci fekk ci nasu maanaam yàq boo xam ni daa bind muhammad baabullahi amu ci téere waaye am na ci téere bi yaa ngi kon am amu fa ci nastu baat yi vocabulaire bi waaye am na fa ci max naa dinaa ko indi dama la njëkk indi yi nga xam ni alxuraan bind na ko ci max naa waaye bind ko ci yax pour nga xam ni doo xaar bu ne la Sëñ wax baabul muriidiina duus boo gisul mbind mi rek amul tëj na ma la koy leeral si benn baabul lay ko jàpp nga ko dinaa la ko indi fi nekk ci alxuraan si kenn wérante ne ndax loolu seen bind na ko lu bari madatu lil karimi aydiya raja innal karima baabahu lan yurtaja kon yonent bi baabu lay yonent bi mooy baabil huda buntub njub amul ko ko werante ndax sëñ bi bind na ko baabil huda naa il mada muulin nada laysil hida maahir rada lu mu baabil huda wal karami kon yonent bi mooy baabil huda buntub njub waaye mooy baabil huda buntub kawe waaye mooy baabul karam buntu tedd nga mm. kon kenn du am njub lu dul ci moom nga jaar kenn du am kawe lu dul ci moom nga jaar kenn du am tedd nga lu dul ci moom nga jaar alxuraan ba mu jeex yax bu andi baabul huda amu ci muhammad mii baabul huda nga xam ne yax bi da ko bind nii gisoo ko ci ci bind waaye ma nga jaar ah. dinaa ko andi ah. noonu la bare yooyu yonent bi mooy baabul wusool buntub yegg kenn du yegg ci yàlla te lu ne da jaar ci moom sëñ bi na ko fu bari xalal rasuuli baabil wusuuli li nay li sooli axmaaruhaa yi la bëgg ca yàlla foofu kooku mooy buntu yegg ca sa bëgg-bëgg boobu xam nga sëñ bind na ko loolu yaa ngi dégg te loolu amul nga xam ne dem na ba wax ni képp ko man talabal wusuula bi xayri rasulillahi hmm. sëriñ Tubaa nee na falaa yasilu ilallaahi te nee na wala yamnahum xanil usuli ila bi taddiyihil usul képp ku sakkoo yegg ci yàlla te jaaroo ci rasulullah yi doo yegg ci yàlla mukk sëñ Tuubaa ko wax hmm. daal ni te la la teree yegg ci yàlla mooy dangaa jaaru ci yoon aw yoon ku ca jaaru doo dem ci dëkk aw ñal la moom fii fan la rek ngay mujjee waaye ku bëgg dem ca dëkk ba jaar ca yoon am déet léegi déglu li ma lay wax yii yëpp xam nga sëñ Tuubaa saxal na ko kon hmm. te sëñ Tuubaa lu mu wax alxuraan la hmm. kon yonent bi mooy baabullaahi buntu yàlla bi mooy baabul huda buntum njub gi hmm. doo dem ci alxuraan gis baatu yàlla ni yónnente bii mooy baabul huda bind ko ci nassu waaw indi na ko max naan woo ma jaasa ah da ngay dem ci suuratul nuur yàlla bi ne ah, bi mu wanee ni njubay tax mucc ku jubagul mucc koo di yàlla xamle loolu fa ammaa man taaba wa amana wa amila saalihan fa xasaa la wax an yakunu min al amna na feneen inna ma yahmuru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as salata wa ata as zakata wa lam yakhsha illa allah fa hasa ulaika an yakunu min al muhtadin gañi dundal jakki alquran la di gëm yàlla pir gëm bis penki tey taxawal julli tay joxe asaka ba ma noppi ragalun ku dul yàlla vérifié na len ba xam man do mën a ragal ñoñu re xayna ma boole len ci ñu jum ñi nakku ku jubul doo tey xëy xëy kon nekk jubay tax a texe ulaayka alaa hudan min rabbihim wa ulaayka humul muflihun gaa yi jub ñoo ñaa ña taxe ñëpp nag daa defar seeni saak ne ko ah jub lañ bëgg a def nag ndax kat texee nu gën a bañ a texe yàlla ñu leen ci suurtu Nuur nga ne lu ngeen bëgg a def ñu ne ko jub mu ne leen wa in tutiihuuhu tahtadu su ngeen bëggee jub topp leen yonent bi ci topp yonent bi ngeen di jubee kon mooy baabil huda nekkate njub ki nga bëgg mënoo ko am te jaaroo ci yonent bi kon nekk alxuraan wax na baabil huda te bi moo tax nan def ndànk da ngay dégg ko naan la Sëriñ Fall Baabul Muridiin foo am loo xam ni dañ koy wax ci lu dul nasu waaye am na alxuraan du wax yonent bi baabul huda waaye lii ma la wax mooy yonent bi nee na alxuraan nee na yonent bi baabul huda te andiwul baatu baabul huda waaye wa in tuuti foofu tax te du su ngeen bëggee jub rek topp ko ku ko toppul jub la wax. ah lii moom li mu ko wax kay daa leer. fa ina aslamu faqad ihtadaw yow daal ku jébbalu ci yow. Hmm. jub wa in tawallaw na ku ko def. fa innama xàlletal balaa wala basi bi xibaar kon mënoo amum ñëpp mukk te jaaroo ci yonent bi kër goo xam ne mënoo faa dugg mukk te jaaroo ca bunt ba bunt booba mooy buntu kër ga kon baa min hudaa andi naa ko ci waaye max nan la ñëwee ñëwut nasab am déet waaye baabul wusul nag ay ay yahuut ak i nasaraan ñoo wax ak yàlla maa la ko wax ay yahuut ak i nasaraan ñoo wax ak yàlla ne ko nahnu abnaullahi wa nun yow yàlla yow lan bëgg nun yow lan sopp yaa ngi dégg say doom lanu say sopp lanu ñoom tudduñu yonente bi tuddul alxuraan ne yàlla lan ne ko yow leen bëgg yow yàlla yàlla ne yonent bi tontul ma xam lu mu ko wax gaa ñooñee qul in kuntum tuhibbuuna ba tey laaxa la de ñi ni man lan so man yàlla te ci man rek lañ bëgg agsi ne leen fattabihuunii nan la topp buñ bëggee ñëw ci man kon mooy baabullahi gaa yi bëggaluñ yonent bi de yàlla lañ bëggal yàlla it leen bëgg ne ko yow lan soxla mu leen jaar ci rasulullah ba di ngeen yegg xoolal li ngeen bëgg ci man bu ngeen jaar ci moom yuhbibkumullaahu ma bëgg leen la wa yaxfir lakum sunubakum jéggal leen wallaahu kafuur rahim suturaal leen yërëm leen li ngeen bëgg ci man du ngeen ci jot te jaaru leen ci rasulullahi kon kay rasulullahi baabullahi alxuraan kon saxal na ni rasulullahi mooy baabullahi te andiwu ko nassan waa andi na ko max na ba mag jaaxle waaw déedéet nit ñi nga dem sax nga jaaxle ci ñoom ndax day mel ni dégg ni day des hmm. yaa ngi dégg kon kon foofu kon nangu nga ni alxuraan andi na ko te jàngu yax bi waaye dala ko jox ci maanaa yaa ngi xam nga loolu loolu lu leer la noonu la koy toppee ba ba ba yëpp jeex nga xam ne lu ca nekk da koy saxal nga xam ne yónnante bi kon lépp lu jàmm bëgg ca moom ngay jaar pour mën a am loolu moo tax mu mujj rek ne man yutihi rasula faqat ataaha Allah ku topp yónnante bi daal sa dëgg-dëgg topp nga yàlla sa dëgg-dëgg topp nga yàlla yaa ngi li nu yàlla yéene itam ci moom la koy jaarale mu du ñu ko jox kon loo xam ne bala nga koo am jaar ca mbir ma mbir ma ngay jaar dog koo am mooy buntub lool hmm. kay kon nga kon baabu mooy li lay yeggale ci li nga bëgg Cheikh Ibra Fall nag ca mooy baabul muridiina ci waxiinu Serigne Touba wu mel ni waxiinu yàlla wii ci alxuraan ci rasulullaahi loolu ku ko werante hmm. xamoo sax Serigne fi ma koy nëkkandi hmm. bala ma ñëw ci lool abou bikirin sidiq amna misal ci ci yonent bi way abou bikirin sidiq koku seigne touba nee moy mooy tariikhi buntu buntub lislaam bi xalal xatiixi baabi aqil wusuqi kullu rijaay tariikhi gogu l'islam na ci seigne touba jublu ndax da bok ci turi l'islam ak tariixatu ndax da bok ci turi l'islam demal ci alxuraan wa inna minal muslimoona jinni yey wax wa minnal xaasituuna fa man naslama fa ulaayika taxaru rasada wa amal xaasituuna fa kaanu li jahannama xataba wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maa an qadaxan ala tariqati bi maanaa ala islaami waaw ala islaami qaalu yaa qawmanaa إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم بمعنى وإلى الإسلام كنا بقى في الإسلام الطريقة man sëñ Tuubaa fu mu waxee sama tariixa bi diine ji la ci jublu hmm. sëñ bi yiliful yilif sëñ Tuubaa yilif àddina hmm. yilif jàmm yi hmm. moo yor yërmande ñëpp moo tax ku ko jàppe adversaire yaa rey sa bopp sëñ Tuubaa xéewal gu nu la nan ko yilif loolu ma ne ndir la dugguma ci waaye dama baatu tariq yi laa lay firi maa ngi Seex Ibra gi de léegi tariq mooy lislaam sëñ bi ne xalal xatiiqi xatiiq Abu Bakrin la. mooy comme mm-hmm. goreel kii. Mm-hmm. baabi tariqi mooy buntub lislaam bi. alxuraan ba mu jeex. Mm-hmm. kenn du ma wax ni jàng nga fu fu fu yàlla ne Abu Bakrin baabul islaam. kenn gis ko ci téere yi. te te yéen wóor na leen ne sëñ Tuubaa lu mu wax dëgg la. lu yonent bi wax dëgg la. kon nu ko doone max naa mooy lan. Abu Bakrin Sidiq dañ koy wooye bàyyi jànq bi xam nga bekkirim jànq lay firi am na sax ñu ni xaa isatu mi mu doon bàyyam te xaa isatu rek la yonent bi denc ci ak njànq mm-hmm. waaye dem nañ ba dàq wax jooju ndax amoon na tur woowu avant ñuy may sayyidatuna xaa isa avant sayyidatuna xaa isa di judd fekk na ñu koy kon avant sayyidatuna xaa ñu ngi koy wooye Aboubacar kon sayyidatuna xaa isa jox ko tur yi bi ñu vérifié ba xam ne la gën a réer mooy jikkoy lislaam yii nga xam ne mooy jikko ju baax Aboubacar yi moo ko njëkk a comporté woo te loo njëkk a comporté woo ne ku ko ku ko defaat ci yow la ko reyee kon yaay buntub loola ci lii la baabul islam bi liggéey ndax l'islam makaarimal axlaax rek la innama buxistu li utammima makaarimal axlaax jaamu yàlla yëpp la defar suñu jikko la bu beneen débat ñëwoon dinaa la leeral ne jaamu yàlla hmm. defar jikko rek ku fi ni ustaas yaa ngi fàttali nit ñi jaamu yàlla waaye daa am nañ fàtte hmm. nañ wax nit ñi li tax jaamu yàlla jub li tax jaamu yàlla jub koo xamul hmm. mënoo def lu tax jaamu yàlla jàpp <laughs> moo yàlla dafa ñëw pour régler problème boobu ak solution bi tey di waxtaan bi waaye da am beneen bis boo xam ne moo fi dikkaat yi nañ ci ah, waxtaan bi tax l'islam jug Aboubacar moo ko njëkk am ci kaw l'islam moo tax ko amaat ci moom nga amee looloo indi baabu gi kon mooy buntu loola léegi nag nga ñëw ci Cheikh Ibra Fall gis nga ñaar yi ma la jox ah, yëpp day ah, bu njëkk bi mooy boo werantee ni sin bee ko bind mm. sin bi def na ko wax ko da ngay dem ci melenu baax yu xadim bu Cheikh Mamadou Bachir bàyyi sin Muntaxa suñu xalifa bu baax ji yàlla na fi yàgg téere sëñ Bachiru moo fa netti li ne sëriñ Tubaa moo ni nii Ibra Faal doxeek man moo ko njëkk a def toroyu ko ci kenn ku ko defaat ci moom nga ko royal koo koy baabul muriid ndax danga naan nu Cheikh Ibra Faal defeek moom lii tax a murid waaw waaw xamante ne nii Cheikh Ibra Fall defee ak man moo ko njëkk def te rëyu ko ci kenn te ku ko defaat ci moom nga ko roye question bi dellu si ne moomu Cheikh Ibra Fall defee ak moom nga ni li di lii tax a doon ak murit bàyyi saw sant di woy sant sëñ bi Cheikh Ibra ko fi njëkk def waaw njëkkut eh, a eh, eh. xam nga seex bi na njëkkut a jébalu ci saay waaye moo njëkk a jébalu ci baatin loolu beneen mbir la Sénégal ni ko doon waxee baatin moo tax damay wax man damay yem ci saa yi di wuti dal yi li ma lay wax nag man bu ma dee wax damay wax li ma xam waaye du ma wax li ma gëm loo dégg ma wax ko gëm naa lu ko waaye daa am waaw loo dégg ma wax ko lu mu réer yi gëm naa lu këpp ah, waaye dama waxee li ma gëm ndax léeg-léeg li nga gëm expliqué ko du yomb ndax pas-pas la waaye soo dee wax deel waxee li nga xam ndax nit ñi dalil la ñuy laaj lépp ma dégg li ma wax am déet dégg na Cheikh Ibrahima njëkk a jébbalu ci baatin waaye baatin du ma ci wax maa ngi dégg te wax na ko maam sëñ Moussa si Moussa Ka ne diglul ma wax la waxi Cheikh Ibra Fall <laughs> kon day nga xamee ci ne mooy Abu Rijaal Cheikh Ibra noon na ma ruuga gëm na Seyxu Bàmba ruuga booba jëm amagul ruuga gëm na Seyxu Bàmba <laughs> lu mat junni at wóor na yàlla buur ba <laughs> te booba sàkk gunu maam aadama sàkkantumaat di sàkk doomu aadama Cheikh Ibra du fan yi moom Cheikh Ibra du fan yi yëpp waaye ma ñëw ci fan yi waaw da de Cheikh Ibra quarantième njëbbal la kaw suuf si quarantième njëbbal mooy mooy 40 personnes bu mujjee jébbalu waaw asasi la sëñ bi woote yoonu Mouride mooy 1301. Mm-hmm. mooy 1883. waaw ca Mbàkke Kajoor bisub àjjuma la sëñ bi woote yoonu Mouride ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la ci weeru koor alxamis googee laylatul xadar la ñu xëy suba àjjuma googee la sëñ bi woote alxamis la alxuraan njëkk fanaan ci kaw suuf di guddi leetu xadar ajjuma rasulullah sallallahu alayhi wasallam yendoo ko yoonu murit it alxamis daa ñëw di leetu xadar ajjuma ga yonent bi andi ne ko rabbi asabaka bil himma gis nga lu ma am ci yàlla himma la ko may himmatu yitte du ko mat sëkk pëssifu wut yàlla di ko bëgg looy am ci yàlla moo la ko may looy ñàkk ci yàlla ñàkk ko la ko xaj waaw bu ma taxawoon ci himma rek mooy lan da nga xam ne himma kenn xamut lu mu ahlu tasawuf dañ ni moo gën a ñëw jaas yi moo ëpp doole montagne waaw sëñ Tuba saa yuy jël la valeur lay jël. gis mu jël ko gën waaw. ci dengan naan moo tax sax ku ci am am ci xam nga xaw sax loo njëkkante ki gaay la nga raw kursu mhm. ah. wu ci da ko moom di ko séddale ku ca la ci cëral hmm. déglul maa ngi ci baabul murid yi nag yi waaw sin wax te la dani yàggali jébbal jébbalu gi moom Cheikh Ibra moo moo nekk asasine sim bi wootee waaw yoonu murid 1301 mhm. la mhm. ci gàddaay gi 1883 la ci atum tubaab mooy miladiya gàddaay gi bu la ko atum waaw ma nga tàmbalee ci yonent bi gàddaay dem Madinatu Munawwara milaadi yi bu ñu la waxee mooy at mi ñu tudde tubaab loolu ñu ngi ko datte ci yonent yàlla Isaa ab juddoom xam loolooy raw kon bii 1301 la bii 1883 mm-hmm. bisub àjjuma la sin bi woote yoonu murid bisub àjjuma ñaar fukki fan juróom-ñaar la ci weeru koor mm-hmm. Mbàkke Kajoor la woon alxamis ji jiitu àjjuma gi laylatul xadar la bëccëg boobee la sin bi di jàngale am na ñu ne alfiya ibnu malik la am na ñu ne saxaratu ba bi di jàngale ba yàgg mu toll ci faaxil faaxin ci jàngale jàngaleem arab ci naxu foofu rek lan mayee nit mu sañ a wax lenn aji sàkk lu dul yàlla na faaxin moo firi aji jëf-jëf te ki tawxiid yàlla rek mën a jëf sëñ bi nag tawxiid ji ci moom nga xam ne tawxiid ji ki sëñ tubaa nekkul ci kenn eh, eh, eh, sëñ tubaa nee na bi bi leen yàlla bëggee message sama tawxiid bi dafa dajale tawxiid yi yonent yi fi mu sa jaar yëpp oh. ku ci nekk tawxiid tam nam mu boole ko bi mu ko plis plisee hmm. égal bi ñu ko jox égal boobu sama tawxiid ji moom lay peese ilaa ilahi llahu qad awsaltu oh. tawhida rusulihi labdun wasaltu oh. tawhid sin bi rek wekk na tamit yonent yëpp eh. tawhid tam juree jooju sëñ Tuubaa tawhid da ca am na lu kenn mënut moo tax yàlla ne ko yaa moom tawhid barke sëriñ Tuubaa yàlla ko ko may yaa moom tawhid mm-hmm. waaw illay afaadallahu tawhid al ahad moskaana lii bi qul huwa allahu ahad yaa ngi dégg loolu yàlla nen na ah. tawhid isin bi mayu ko muy tudde aji jëf dara moom lu dul yàlla hmm. eh. te grammaire xam nga luy faaxee mooy sujet hmm. verbe sujet complément wala sujet verbe complément moom ngeen gën a xam ah. sujet mooy ki def jëf ji te kenn rek kay aji jëf ci tawhid mooy yàlla hmm. waaye booy jàngale sañ nga ni kii def jëf yi tey jii bu la dee jàngal dañ naan la Moodu Dóor Ablaye yaa ngi dégg kon Moodu mooy Cissé bi dóor bi mooy verbe bi Ablaye di complément bi mm-hmm. yaa ngi dégg foofu jàngale may na ko waaye tawhiid Sëñ Tuubaa mayu ko mu mu firi faahil di ko jëmale kenn ku dul yàlla ndax yàlla rek kay alfaahil aji jëf mu toll ci loolu tax sañu ko bañ a jàngal ndax jàngale daa maye nga wax te yonent bi nee na ko amum xam-xam te xamle woo ko ëllëg mën na la ci naq mm. Sëñ Tuubaa ne béréb dugg ci biir toog fa ab diir dellu si ko faahilun mu mu demaat ba koy firi taw itam mayu ko ko mu diwaat béréb dugg ci biir. dikkaat ne ko faahidun mu ni faahidun taw itam ma yàttu ko mu firi ko. suñ tubaab diwaat béréb dugg ci biir fekk rasulullahi toog di ko xaar. géntu ko janiiru ko saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi xawlihi dafa toog nii janoog man jaa jaaf jaaf suñ tubaab nee na direct. maag rasulullah dara doxul suñu diggante loolu nag comme jaaxal xamoo suñu tubaab nee na waxuma la sama diggante rasulullah waaye sama diggante yàlla dara doxul dem lam yëpp ko bay nii yow boo bay na laay fi jàppal maag yàlla face à face la waxuma la rasulullah nag suñu tubaab ah looloo ko may nga naan ñëw wax ko dara léegi di ba mu toog fu mu toll ne ma laaj ko sama borom te du jóg fi mu toog day toog ni nekk rek ne dama ni diggam ak yàlla ah. connexion directe bi mu am te te ligne bi du yàqu connexion bi du dagg saa su ne bi lan fi moo ko may si na blaat nee na ngay ñëw wax ko dara léegi mu ne xaamal ak sama borom te Sëñ Tuubaa du déplacé wu du téléphoné fi mu toog lay toog rek ba yàgg mu la laaj naa ko nee na Sëñ ko fi mos a def nag loolu du yonente du kenn ma laaj ko sama borom waaw doo déplacé wu toog ba yàgg rek nga ne laaj naa ko nee na Cheikh da koo eh, jege. eh Sëñ Tuubaa ko Sëñ Tuubaa di. bàkki Sëñ Tuubaa waaw Sëñ Tuubaa ñu ko waxtaan sax ci tere yi. bàkki Sëñ Bamba. Eh, eh, yaa ngi bëgg a waxtaan waaw Sëñ Tuubaa Sëñ a waxtaan. waaw Sëñ Tuubaa moom gis naa moom jàkkaarloog yonent bi. bi mu duggee maa ngi ci yoonu murid bi mu ba waaw Baabul Muridiina gi rek teg ci sa loxo. waaw ndax dama laa am ne la sëñ sëñ sëñ sëñ Basiiru dani sëñ Tuubaa nee na mm-hmm. li Seex Ibra defee moom mm-hmm. moo ko fi njëkk def te rëyu ko ci kenn ku ko mm-hmm. defaat ci moom ko ko gisee man la bu la laajee nu mu defee moom neel lii tax a doonub murit ma di la wax nag ak murit kañ la sosu ak lii tax a doonub murit lan la ci man laa firi luy baabul murit yi maam Cheikh Ibra xanaa xamoon ne ci lay natt murit man. Eh, ah. ku cof dara ci mbiram lu mu tuuti tuuti. lu la gars yi naw naw naw la. ak koo mën a doon nag. santaw nu ne melal ni am nga loo xebet ci mbirum Cheikh Ibra. donc eh. donc Cheikh Ibra ma yégee ko xebet dara ci moom billaahi tegatuma la fenn. Eh. man Cheikh mooy sama mooy miisaan man maam Cheikh Ibra sama miisaan ci yoon wi. waaw bala maa nangu dëggalu kenn dama laa natt Cheikh Ibra ma def ak moom ah foofu laa ne de man saa di dafa nit ñeneen waaye man fa laa ne dama ni bi mu duggaatee ci biir moom Serigne Touba waaw fa la fekk rasulullah yi saafaxa la wax tuñante waaw waaw gars yi dañ naan gént yonent bi ginnaawam sax mënta nekk ak mën naa ne mhm. Serigne Touba bëggutu gént de dana dikkal na ma moo ngi nii toog waaw waxuma la Serigne Touba waaye mag ñi rek ñi ngi Serigne Touba wan yonent bi kenn xamul lu mu toll ah. Mamadou Lamine Diop Dagana fii ci Njaaréem jekk siñ bi da ko mayoon fu mu nekk mu fekk ko am na bis boo xam ne si mudi la day ñëw te yëgluwul ndax siñ bi da ko ko may waaye bi mu ne tëll siñ bi la oh ndax leeru kase la gis si mudi la yegg suuf ab dee siñ bi woo la ko Mouhamadou Lamine mën a ko mbagg ki nga fi fekkoon rasulullah mm-hmm. moo toogoon ci kaw lal bii yonente bi ñëw njaareem def ak Sëñ Tuubaa 15 jours. 15 yoo xam ne ci Sëñ Tuubaa la ne di fa ndékkee di fa añee di fa reeree. fa lay naan ataaya ak yëpp nag góor rasulullah yi. Sëñ Tuubaa daa ne 15 jours yooyu def bis bu ne muy année. moo moo waral bi la nit ñi war a teey. waaw oh. ngi dégg nee na bi ma fekkee yonente bi ci biir. Hmm. foofa la ne ma rabbi ashaabaka bil himmati wala bi darsi xam nga lu ma jaaxal. Hmm. mooy nit ñi dañuy wàññil Sëñ Tuubaa dëgg la yokkal Sëñ Tuubaa ni mu garaawe mm-hmm. wàññil ko noonu la toll waxi Sëñ Tuubaa mm-hmm. laajul yokk waaye laajul wàññi xam nga lu tax mm-hmm. Sëñ Tuubaa ëppalewul ba nga koy wàññilee waaye cëkkalewul ba nga koy yokkal te léeg-léeg suñu ko ragal ñun murid yi dañuy yóbbu ci wàññi waxi Sëñ bi foofu damay dégg ñu bari bu ñu koy wax dañ naan yénente bi dane ko bul yar sa taalibe yi ci ñàngum kase yar leen ci yitte waaye bu leen yar ci kase xam nga faxat mooy firi kase hmm. amu ca hmm. ah? déedéet yar leen ci yitte te bañ leen reer ci njàng dong la walla waaye lu ñu kase ngir ragal nit ñi ah. naan xam naa njàng déet sëñ Tuubaa bañul njàng ku ko digle la ku bëgg nu jàng la wa man nahaakum ani ta'allumi fa huwa xaliifatu lahiini mujrimi syndiqué li war a def ci jàng yëpp def na ko digle ko waaye loolu complexe ba yokki waxam yonent bi dana ko yar leen ci murit te ba te bañ leen a yar ci njàng sëñ bi ne ko fa mu njàng indiwoon wujul ko la jàngal su fekkoon dana ko koy njàng mi boole ko ci lu tasa daara ji waaw ku ci bëgg a boole lii ñëwal ku ko ci bëgg boole yamal ci njàng ah. waaye dane ku fi mu njàng indi woon wutul ku la jàngal ah. parce que li fi man am njàng waneetu ko mm. sëñ Tuubaa ku bëgg a ànd ak moom di xool téere yi doo doon dara ñi rey ñëpp ki seeti bi nag lii la na dañu seen téere yi te néew fa mm. ko bind lu mu bind daa nekk ci téere ñu bind mm. bi ne daa nekk ci nun nag lu mu dul bind walaa yum taxu kenn du ko wax bal ñu xaraf lu ñuy mos la waaw lu ne mu Cheikh Ibra nee na doom Bamba ji nu yëg la ah. nu yëg doom laajal ñaanal nu yëgal la ko ah. waaw waaw nun dañu yëg nan koy yëg waaw dañ koy yëg bopp yi metti lu ñuy yëg la waaw waaw kenn di ko bis ah, nit bu boppam day metti oh. ak ba boppam mettiwul seen forme ba sensé wul da nga gis daal muy wiñaaroob di kii waaye lay métti bopp ba du luñ bind ci kanamam duñ ko bind ci jëwam da koy yëg am mbirum yàlla yi noonu ñu mm-hmm. koy yëg tey gis nga nit boppam buy métti mhm. donte sa wayjur la mhm. loo ko yërëm yërëm yërëm tiim ko nii mënoo fexe ba sentir métti fexe bay yëg métti bi muy yëg ci sa bopp mënoo ko mhm. bamba ji noonu rek eh, li ma yëg te yëgoo ko <laughs> da ngay toog du ko weddi waaye du yàgg ba nga yëg ko na mosalul la ko yaa ngi dégg léegi nag boobu da yoon bu sos boobu la yoon bu sos si naa dama gën njëkk a xanaa xam nga Cheikh Ibra moo njëkk a ci saa yi moo njëkk a jëbal ci bàcc xam nga lu tax gisoo bi muy ñëw awul ci sëñ Masamba Diop Sam mhm. awul ci sëñ Mandumbe Xabbaan awul ci sëñ Mbàkke Buso awul ci sëñ Daaru Sam dañ naan la ku mu àndal mhm. nga ni si naara liggéey mooy ka njëkk a jébbalu mhm. ci moom la àndal ñëw day fii njëkk a jébbalu Cheikh Ibra ci saa yi waaw man mii maa la ko wax ah. ay si même ci saa yi sax moo njëkk a jébbalu moo tax bi mu ñëw gi sëñ Tuubaa àndut ak deuxième ànd ak troisième première la àndal ngir wane ne moom première la alors ma ne mbir la yaa ngi dégg sëñ <laughs> Tuubaa ko wax awala man amana bii woo bàyyee na lii huwa Adama Gueye ki njëkk jaayanteeg man gëm ma mooy Sine Adama Gueye bu nee 10 mu ne wa Ibrahima Sarr Ndiaye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye bu nee 10 wa Massamba Diop Samb sëñ Massamba Diop Samb ki topp ñu di ko toftalam dina numbe fekk ko fa sin dee ko yónni sin daa Abdourahmane fekk ko fa bi ñu ñëwee sin di informé la ñu daal di jëbbalu sin bakk ba ya. sin Daaru Assane sin Mor Ndiaye tàggaal sin ya. Modou Fadia Fall gaañoo tam sin Daaru Assane gaañaa nga wax yaa ngi dégg ñooñu daal di jaayante ak sëñ Tuubaa Modou Fadia ma dinañ ci Cheikh Ibrahima bi si naarama nga jëbalu ba pare xam nga moo jëbalu waaw kookoo dem ba yàgg mu yéem see xiw la ni mu mel ñëw ne sëñ Tuubaa jaaxle naa mun ne ko loola jaaxal te maam Cheikh Ibrahima Sarr ngeen du kenn déedéet loola jaaxal mu ne ko Ibra Fall hmm. damaa njëkk te jëbalu hmm. te am ci yow lu ma amul mag ñi dañoo nangulaante sëñ Tuubaa moo ñu ko dama laaj ko ko <laughs> mu dem ci Cheikh Ibrahima Fall ñu ko dama laaj ab laaj ku tedd ki mu ne ma naa la ko laaj mu ne ko loo ko laaj doom moom ku ñu waxal doom la lay wax boo amee baatin da nga xam ne ñëpp ay doomam la ma ko ca yàgg yaa ngi dégg loo ko laaj doom mu ne ko dama ne ko njëkkuma jébbalu te am ci moom lu ma amul ndax mag ñëpp xam ni Cheikh Ibrahima li mu am ci Sëñ Tuubaa amul ko suñ mu jow paxa nii mm. Sëñ Tuubaa da koo mayoon àjjana saa su ne dafay dem fa lay yend ji boori ngoon la ñibbisi <laughs> eh ma ci ko sa ma jaar sama kër xarit bii nan fa tay sin ma joba ko gaaram place am àjjana ji la wo boori di sa téer mu ñëwaat eh. sin tubaab la ne def na ko di yewi eh. <laughs> barkis nga ni lan eh. àjjana la dem yenn fa vérifié ko taaf moom jub ñu ne ko Ibra Fall la ko moom <laughs> mu ñibbisi na sin tubaab man de am naa jaaxle ci sa ndimbal ak sa mbaax kattan gi nga ma defal ba tax may na sama yendu tey ji kat taax mu jub dañ ci Ibra Fall ko moom ma ni kon Ibra Fall nga ko jox mu ne ko déedéet sax Mamadou Diop moom Mouhamadou Diaw yéen la Ibra Fall jëfam lan ko jox mu ne ko kon day mbàkk damaa bëggoon nga may ma comme Ibra Fall raw na ba noppi na wax Ibra Fall raw na Abdul Karim Touré sëñ Abdul Karim Touré nga xam daa rëy ci sëñ Tuubaa ba bu Jibril daan di kër sëñ meraw Abdul Karim Touré la yor xam nga Jibril leer la ko ko gis dee jibril kenn attanu ko moo tax buy fi kitaabi mariama isin la jibril fi nit la yor ndax yàlla nee na damaa yëg ni yéen nit la jaxal naahu rajulan wala labas naa xalee maa bisuun moo tax jibril ba mu daan dikkinte melaw daagetul kër bii laan yor waaye bi mu dikk ki sëñ nag melaw si Abdou Karim Touré laan yor si Abdou Karim Touré moo mee la sëñ Tuubaa jël jël loxoom ba teg ca bët nag Abdou Karim loo mën a tey gis Ibra Faal raw na oh. jël loxoom bi teg ba teg ca bët ba nag Abdou Karim loolu mën na tey dégg Ibra Faal raw kon raw Ibra xam nga sëñ ko mag ñëpp ko xam moo tax si mu job xam ne comme raw na damaa bëggoon nga may ma fu mu teggee tànkam ma teg <laughs> sëñ Tuubaa ne ko loolu faat na waaye dinaa la may yow rek kii séenu pëndam. seen pënd laa wax pënd eh, nag pënd nag foo ko séenee. Ah. jëm ja dem na de. <laughs> foo séenee pënd jëm ja dem ne. yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye looloo ko mu ñëw laaj ko maam Cheikh Ibrahima ne ko ñëkkoo maa jébbalu te boo xoolee kilo si danga naan wax na dëgg ndax ngoon googu si naa dama gëy jébbalu mu tegu ci. waaw. amaat nañ 39 njëbbal ba ki déwén sa Cheikh Ibrahima kon ci bi nit xam. Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye njëkk a jëbbal waaye bi nga ko waxee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima dana ko ah doom kañ nga jëbbal nekk Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye jëbbaluwu sax ngoon googu moo tax gars yi sëñ Tuubaa rek mën nañoo moyu dane ko bi ma amee ke sama biiru ndey ñetti weer mm-hmm. yëpp ni sëñ Tuubaa feeñ na jamono to moo ko yilif te ku ko joxul sa bopp doo doon dara ndax yàlla laa décrété ci àlliwaam di nga xam ne lu mu fa bind du ko far lawhul mahfuz juróom-ñaari mm. wet la mm. wet gi féete mm. première la yàlla y binde kataba googu Sëñ bind ko mooy fan yi binde lu ñu dul far foofu la yàlla bind ne kataba tabaraka wa taala anna katiba hatil hurufi istaslama ilay jamihul awliyaayi awairahum awaxirahum wallahu ala ma naqul wakiil yàlla bind foofee ahmadu feeñ na képp ko amul tomb ci yàlla jébbal nga ko sa bopp koo dégg jébbaluwut amatul tomb du wàllu wala koo déggu nag jébbaluwul ak banana waaw looloo wér mag ñëpp jëbal nañ si Ibrahima Sane Ndiaye ah. bi ma amee ñetti weer ci sama biiru ndey laa yëg ni borom jamono jooju feeñ na ma jëbal ko sama ci sama biiru ndey ñetti weer oh. barke sëñ eh, eh. maam Cheikh ko maam seen xaar doom yow yéex ngaa jébbalu di. dañuy <laughs> jébbalu trois mois ci mbirum ndeyam nag xanaa teel naa jébbalu. ok <laughs> ok déedéet <laughs> ko gëm te wóolu ko. Oh, oh, sëñ Tuubaa mii nan ko doyloo. Oh. moo moo neex ci gisee sëñ Tuubaa mu def lu mel nii nga di ko werante. te nit ñi lu leen dal a gëm luñ dégg. yónnente yeeg yi fi jaar yëpp dañ ko dégg rek. gisuñ ci dara mën koo gëm. moo sëñ Tuubaa mi def lu ni faa nga man ci dëkk sa bëgg. waaw nan ngay mën a weddee nga gis di gëm li nga dégg. Touba ngi nii doomi Sëñ Touba yaa ngi nii sëñ yaa ngi nii xasida yaa nii photo ma ngi la mi ngi nii mooy maami Sëñ Muntaxa mi lu jegee nii nga mën koo weddi mën a gëm lu soree nee complexe la complexe la góor barke Sëriñ Bamba a wér a nii maa ko wax kenn jàng fi loo weddee Sëñ Touba yaradi ko rek yaa ngi dégg waaye dama lay wax de hmm. seebra dana ko addoon ah, yax ngaa jéggalu di hmm. mu ne ko ah yaa ma njëkk jébbalu nga doom nga ne kañ nga jébbalu noo ko dama ni bi ma amee ñetti weer ci sama biiru ndey laa wax de ah Ibrahima Sarr <laughs> yeex ngaa jébbalu man ba may jébbal sama bopp seen ndam ndey ak bàyyi xewul waaw xanaa léegi li ci ko njëkk a doon baay bi mag ci baay yi mooy sayidina aadama ndey ji mag ci ndey yi mooy sayidina sayidatuna hawa yaa ayyuha naasu taqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan première mère aadama première père say sayidina sayidina aadama mooy première père sayidatuna hawa mooy première mère kon ba see xilee jëbbal boppam sëñ Tuubaa ñooñu xewunu kon kenn loolu. Mm-hmm. loolu sëñ sëñ dégg na mu xel. xam nga ma jaaxle. Mm-hmm. mooy aadama ba ba waraloon suñu ca booba. waaw ba muy jébbalu si moom la àndal. waaw Cheikh Ibrahima mbiram loolu la neen la. <laughs> dama laa bëgg wax benn affaire. waaw. léegi nag lan lañ njëkk a defal Sëñ Tuubaa ba tudd Baabul Muridiin ñooñu ñëpp jébbalu jox nañ seen bopp Sëñ Tuubaa waaye ak taalibe bi xamul nu ñu koy defee. waaw buñ defee ne dañoo yaafus de. waaw ñooñu ay ponkal la mu de. waaw yaafusunu. Mm-hmm. waaye ni nu war a topp Sëñ Tuubaa gis ko mënta jàng fenn na binduñu ko hmm. Hmm. yàllaay waajal ko koy wane hmm. jaar ko ci moom mu wane ko kooka nag mooy bul doon buntub loola ku koy defal ci moom nga koy jaar Seex Ibra moom ku nanguwul ne mooy baabul murid diina doo doonu murid yow ñëpp bi ñu jëbbale seen bopp Sëñ Tuubaa dañoo téye seeni sant ku sin bi woo nga seet noo wuyoo Cheikh Ibrahima indi ci yoon wi bàyyiwu sant santam bàyyi sant baayam bi wuyoo sant sëriñ bi <laughs> Ibra Fall mu ni Mbàkke ku ko waxaat Cheikh Ibrahima ko rey yëpp koo ci woo dañ wuyoo turu santam Mbàkke <laughs> ne waa Kassim Mbaye Saar <laughs> dama ni liggéey jox sëriñ bi te di fande doo lekk Cheikh Ibrahima ko sëriñ bi ah. waaw dama lay wax yi mu njëkk a defal sëñ bi te royu ko ci kenn mhm. te ko deful fi mu toll doo amuk taalibe te ko defaat ci moom roye ko ci moom ngir amuk taalibe war ngaa xam ni mooy baabul muridiin eh, ah lu ma la waxoon ca boo bakkar yi njëkk njëkk jikko wa jikko lislaam moo ko def baabul tariq mhm. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam max nan wa majaasan lu ko def loolu baabul hundaak baabi a baabillahi lii indi baabul muridiin yaa ngi dégg dama ne maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi indi teg sëriñ bi ci kaw te toog ci suuf mhm. waaw ber keesu sëriñ bi waaw keesu sëriñ bi nee keesu soxna ya nee keesu dongo ya nee kër sëriñ bi ko organisé Cheikh Ibrahima ko fenn ko boo demee kër gis mu berub keesam <laughs> waaw looy weddee Cheikh Ibrahima ba di sikk nga ko ku ne bëgg nga sëb taalibe boo ko yónnee mu daw te gaaw ci bëgg la lool sopp ne ba nga gënal ko sa Wan, nooy weddee Cheikh Ibra ba nag te loolu moo ko feeñ ku mos a jur sa doom da nga koy yàq bu jàng jotee nga jàngal ko bu amee njariñ nga bokk ko njariñ li ngeen njariñoo waaw jur sa doom ne moom ma ko Sëñ Tuubaa ko moom Cheikh Ibra ko feeñ jur joxe waaw déedéet maam Cheikh Ibra moom mooy yoon wi man maa ko wax yaa ngi dégg nii nuy toppi Sëriñ Tuubaa bëgg ko mu gën a nu lu am jox ko duñ ko bëggal dara duñ ko bëgg doon duñ ko bëgg doon xam ni sunu njëriñ tey ëllëg moo ko yor Cheikh Ibrahima ko fi indi Cheikh Ibrahima bi mu dikkee dañ doon sàllalu si bi Moodu Mbàkke lañ doon wax moo fi indi Sëñ Bamba ku tedd ki yi ngay dégg yëpp Cheikh Ibrahima babul mu di la kon xanaa koo koy babul mu di la danga dégg te yi yi ma lay wax mooy yi tax a doon murit ak sa sëriñ ñoo toog ci futé bi nga ñoo ne faax ci wetam lu gaa yi wax sama ay ñàkk dalu bi kon sax toog ci suuf defar saw toog yi mooy fii di ñu ne sa waay am nag dalu bi Cheikh Ibrahima ko fi indi am doon nuyu sëñ bi su jootal ko te doo ko nuyoo loxo yi neen Seex Ibra ko benn xamu fii ba waaw waaw léegi lu ci gën a garaaw sax mooy ñëpp kenn wérante wut ne maam Seex Ibra sëñ bi da koo gërëm ngërëmul maam Seex Ibra moom dégg ko ko wérante moo sëñ Tuubaa ni muy gërëm ko yàlla gërëmul te yàlla du gërëm ku nekkul ci ni bëgg kon yow mi defee ni maam Seydou teguwul ci yoon yàlla na muy gërëme ko ko yàlla gërëmul ndax ba la gërëm danaan la yàlla gërëm la yonent bi la am nga sama ngërëm te ñëpp sikk sàkk bu ne Seex Ibra Sëñ Tuubaa gërëm na bu fekkoon ke yoon yu ne Sëñ ba defee ni loolu du yoon <laughs> Sëñ Tuubaa la ba amul kum ragal Sëñ Tuubaa kenn feesul bëtam mm. Sëñ Tuubaa li ko yàlla jaral jëralu ko kenn junni mii tax ñu bari ba contre maam Cheikh Ibrahima lim jaral Sëriñ Tuubaa jërul leen l'islam yëpp daje nañ tëgg masalam eh, salaatul jam yi boole julli eh. ci diggante timis ak gee waxtu nawet ah. am na fa nawet bi toll nit ñi dañ naan buñ jullee timis waaj pour julli ji gee yaa ngi dégg jógee seen kër julli si gee man nañoo tawte wóoru leen de dañ koy njort eh. ndax taw xay bu la inna allah indahu ilmu saaha وينزل الخيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تكتب قضاء وما تدري نفس باي ارض تموت انما عليم القبير كنا بوكو الخيب الخمسه واجب تاو كون وور لا بخم غنا تاو دي واي سين ويتي غن جوخ فوني ريك مننا ام بلا جي مو تاو تا بو ديمي تي كريي بغا وات جولي سي جي مننا تاو يالا ني اه كوم جارالو لين تاو دي دال تيغوما لين يالا خنا خما كومبليكي وول nit ñi ñoom nit ci waaye yàlla ko ko yombal yëfam la yuridu la bikum yusra wala yuridu bikum yusra ahlu fuqaha yi d'accord yàlla danaan comme julli gi jëralu leen taw te bu ngeen sëlmalee timis na bilaal nodal gée ngeen boole waxtu timis ak waxtu gée jullee doo ko tëj jàkk di ñibbi lii ma lay wax du baatin de sariha la laa wax ku jàng diine xam nga ko te waa l'islam jëpp ki d'accord waaye dama lay laaj bu l'islam d'accordé ci loolu di ci dox ay siècle kenn musu koo di wuute ñu dem ba ci biir l'islam jëmu feeñ tudd Cheikh Ahmadou Bamba fii ci Sénégal la feeñe yor dër bu ñuul dun naan mille neuf cent bakar ñett dun naan kun xamutoon la Maamoor Jaara la ñu tudde baay ba Maamoor Anta Sall la ñu tudde baayam soxna Jaara Tulaay la ñu tudde way juróom da ngay ñëw ñu la Mbàkke Bawol gii la gënee jamono loolu yàggul dun na ban naar la moo feeñ laa wax ànd ak tubaab bi ci mille huit cent yi dugg ci biir géej gi la taxaw la waaw ma laaj la waxtu la woon de yàlla mi nga xam ne soo naree tawte mu baal la hmm. soo naree lam nag barke si lab ak tawte lu gën a gaaw lab lab tawte looy lay indi rek bi lab dee kon sëñ Tuubaa ëpp ngant gaa yi waaye dana duma fàat loxo jël deram ba sànni ko ci géej gi fekki di ko l'islam bu leen julli jëriñu tawte comme jaral lab waroon na noonu dajale foo moom morom suñu sëñ bi du par parloo dara amul morom. Mm-hmm. eh sëñ Tuubaa mi julli jaral loolu laa wax. yàlla baale taw te moom moom mu la. kooku ku mu bàyyi këram julli woo wóoroo mu accepté ko war nañ cee maal. da ngaa mën a bëgg julli ba ba gën ko bëgg sëñ bi. julli loolu mu jaral sëñ bi dana ko jàpp. sëñ Tuubaa sëñ kër julli wóor wóorul mu accepté ko. ngay wër naan ko julli wut ak wóorul. te noo def ndànk. nan def ndànk Seex Ibra daal ci yoon wi mu ne moo ko def baabu muridi mooy buntu muridi loolu ku xamul Sëñ Tuubaa mooy werante ni moo ko doon ak doonub mm-hmm. lépp luy tax a doonub taalibe Seex Ibra ko fi njëkk a def ku ko defaat Seex Ibra nga ko royee mm-hmm. lépp loo xam ne nag ka ko njëkk def ku ko defaat ci moom nga ko mooy buntub loola loolaa def Abuu Bakrin baabul tariq loolu it lépp loo xam ne bala nga koo am jaar ci jëmm ji nga xam ne moo ko ubbi loolee loolaay buntu ba loolaay tax yonent bi di baabul wusool loolu tax yonent bi di baabul huda loolu tax yonent bi di baabul laahi lii nag moo def Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiina wal muridaati kantul maqaamaati wa saahibul masiyaati te diyaawu tariixati kenn du Cheikh Ibra laaj boobu loolu laa ciy tontu barke naa ko yàlla def foofu waaw maam Cheikh Ibra bi ñuy tuddee doomu Serigne Touba tout temps boobu du doogul Cheikh Ibra daa gën a xam nit ñi sëñ waaw maam Cheikh Ibra daa xamewul fii Sëñ Tuubaa Sëñ Saaliwu ne waxtaan ak sin Béthio ci mag ñi di ko wax baaxu mag ñi ku ne mu jël ko Sëñ bi yéemu rek seex bi di yéemu ba yàgg muy wax ci mag di wax ci mag ñi ba seex bi yéemu mu rek daal di yëkkati tànkam ba ne ko ñëw ma wax ñëpp mu ne ko ah, sama bàyyi fii waaye yéen doomu kenn mën a gën a ragal yàlla kenn dina gën a mën a bëgg lislaam waaye lu tax ñu bàyyi bàyyi xaalis ci leen nekk ba noppi nangul leen maanu woon ci ñoom de ah. dañ leen di liggéey loo ah. di leen sant yi ndigal di dugal ci seen bopp université bii seen di xëdee koy miire di ah. ku ko jox seen Muntaxa seen seex jëm bëgg démb la wàcc xaram yu bari yi ku mu ko jox seen Muntaxa waaye nag njabootu Sëñ Tuubaa gii ne da ngeen mën a gën a xam lislaam niñ accepté njabootu maam Sëñ Ibra gi ba noppi dugal leen ci seen bopp intégré leen waaw loolu a tax nga man waxuma sax ku dul am murit dangay mourid murit boo xam ni day jaay ni mourid la Sëñ Tuubaa la bëgg a waaye xam nga affaire u Baay Faal xoolal yi di di complexe naan affaire Baay Faal xoolal xanaa xamoo ni billahi wallahi talla am na sax yoo xam ne mën ta wax yaa ngi dégg maam Cheikh Ibrahima daa gën a xam nit ñi Sëñ Tuubaa daa àndut ak daa àndut ak moom fii Cheikh Ibrahima Sëñ Tuubaa fi yàgg turwa ba mu tuddee wa laal bëgg a leer li ko indi waaw gis nga problème bi mooy Sëñ Tuubaa fi yàgg dama leen a bëgg waxtaan Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa du koy defe nii ci naan 1852 la judd mooy sëñ bi de dëgg la déedéet loolu mooy melaw yu mujj a ñëwee sëñ bi dafay yàgg sëñ fi la mu fekk ah. te asaabul kaf fi mi ngi xew ci diggante sëñ day jaay ne murit la mm. sëñ Tuubaa waaye waaye xam nga affaire Baay Faal da xoolal lii di complexe naan affaire Baay Faal xoolal xanaa xamoon nii billaahi wallaahi tallaa am na sax yoo xam ne mën ta wax yaa ngi dégg maam Cheikh Ibrahima daa gën a xam nit ñi sëñ Tuubaa hmm. daa ànduta daa ànduta moom fii sëñ Tuubaa fi yàgg tur ba muy tuddee tur woowu laa bëgg leer li ko ni waaw gis nga problème bi mooy sëñ Tuubaa fi yàgg dama leen a bëgg waxtaan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du pour defe nii seen bi de dëgg la déedéet loolu mooy melaw yi mu wuta ñëwee suñ bi liggéey yàgg. suñ bi nee na asaabul kahf ci la ah. ngi xaw ci diggante Seydina Xiisa ak Rasulullah ba yéen tëj seen dugub. alxuraan nettali na ko tudde ko aw saar sóotu kat mhm. juróom-ñaari xale ak seen xaj mhm. sa yaqooloona salaasatun raabisuhum kalbuhum mhm. wa yaqooloona xamsatun saadisuhum kalbuhum rannan bil xaybi wa yaqooloona sab'atun wa saaminuhum kalbuhum xul rabbi a'lamu bi hidatihim ma yaxlamuhum wa illaa xalil alxuraan dañuy juróom-ñaari xale lañ ak seen xaj ba sir bi sax tudd na xale ya tudd xaj ba bi xaq xa óola yam lii xaar moksa mhm. lii naa mus mhm. lii naa mhm. mar nuus saasa nuus dabar nuus kafas tas yuus xit nii waaye dafa daa wax dara ah. alxuraan dañuy juróom-ñaari xale ya la ak xaj ba te fekk boo ku man yàlla ni ko seere bi ne. raafaqtu. ahlal kahfi. waaw faaraxtul xadar. waaw waaye dafa ak la teg la nem. kalam bi yaa fii man taxaala an xadar. dañu àndoon na nag asxaabul kahfi. waaye duma xale ya te duma xaj. barke Sëriñ Tuubaa te yàlla nee na. waaw xaj ba la. ak xale ya ak man yàlla mi ko seet. si mais fekk na ma fa waaye duma ca xale ya duma xaj loolu. bi loolu. waaw waaw kay yooyu sëñ bi loolu. <laughs> waaye dama ciy teg la ne nga ne waa si loolu yàgg ne loolu lépp gi xelan ngi maan te tàmbalee maam aadama ba ci rasul la sëñ Tuubaa nee na kal anbiya ni ma ànde woon ak asaabul kaf kal anbiya noonu laa ànd du fan yii de déedéet déedéet ma lay wax de daanaka sax man kii dama ci bëgg di wax ku ci amul wax parce que. nga ne ko waaw loolu moom jàngale ma loolu yàgg maam Ibrahima alxuraan moo jàngale ne moo tabax kaaba gi xam nga looloo jiitu yoon ci loolu Ibrahima sax tabaxam am na ci juum Ibrahima du jëmmi kaaba gi la tabax déedéet kaaba gi bi yàlla sàkkee suuf premier tabaxam kun see kun la sa borom ci kun la amaloon kaaba gi innama amruhu izaa araada shay'an an yaqoola lahu kun fayaktub fa mhm. subhaanalla si bi yeddihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'uun ci kun la amale woon kaaba mhm. kun la mhm. deuxième tabax bi yonent yàlla aadama moo ko yeesal troisième moo ko yeesal ndax yoon nañ ko tabax moom kaaba gi tabaxu Ibrahima gi li ko cëndi mooy yonent yàlla Nuuh bi mu fi dikkee tuufaan ni jaar rabbi laa tasar alal ardi min al kaafiriina dayyaaran innaka in tasarhum yudilloo ibaadaka wa laa yalidoo illaa faajiran kaffaaran rabbi ighfir lii wa li waalidayya wa liman daxala baytii mu'minan wa lil mu'minaat wa laa tazid saalimiin illaa tabaaran tuufaan moom nga xam ne ndoxum kaw ak ndoxum suuf ñoo daje adduna tukki ñun ña dugg ca gaal ga was nahin fulka bi ahyuuninaa wa wahyinaa fa izaa jaa amrunaa wa faara tanuuru fanfuq fiihaa min kulli zawjayni isnayni wahlaka ilaa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa laa tuqaatilnii fi llaziina zalamoo innahum ghaafilun tuufaan moomu nag daa màbbaale woon mbiru kàlla bi. day dégg waaye fondement bi nag des na fa daa suul keroog bi yàlla digal Ibrahima mu dem tabaxawaat mooy da koy yëkkatiwaat waaye day tegaat rek. ci kaw fondement bi mu dugg. moo tax alxuraan ne wa is yarfa'u Ibrahimul qawaaida qawaaida ba taw ji. mooy karaya min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim waaye bi ñu wax la sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na keroog ba yàlla lay wax maa Ibrahima moom ànd ak Ismail ngeen dem tegaat ca kaw kaaba ga ay tabax nee na man nii la war a ma gunge ko dem wan ko ko erke sëñ Tuubaa ko bind de man la war a wax ma def na ko sëñ bi bind baytul la wax dahaani rabbi wal xalilu maha ila ziyaratihi qitman min asama yàllaa ma woo dahaani woo na ma daxaa nii fexal ak eh, faahin la waaye daa andaale yaa mutakallim daxaa nii woo na ma noonu du nun koy xaaya la ndax da nga koy leeral ba dañu naan da koo firee noonu fi mu dee ko wax daxaa nii woo na ma ay arab ku la woo rabbi sama borom loolay faahin bi yow dong la woo mën déedéet wal xaliilu woowaale na xarit ba mooy ibrahima xaliilullahi maha lu mu leen doon doyee mu ni nu ca ba ila siyaaratihi ñu ànd dem siyaara ji ko bu ko defee bu bu noppee mën koo tabax waaye xam nga li ko ci ñu teg xin man mel a saman waaye loolu yàgg na nag li ci jamono walaay bakki walaay bakki du jamono ji xin man nee na jiitu na nag mel a saman ci jamono ji nga koy gis lii ma leen di wax ne bu temps bii sëñ bi ko wax waaw dama lay wax sëñ Tuubaa ko dayloo léegi nag yàggug sëñ Tuubaa boobu waaw xam nga yàgg na fee ñëw kon waaw yoon mu fi ñëw nag ànd nag seen la waaw dama bëgg wax maam Cheikh Ibrahima oh, dafa am loolu tax mu xamee seen tubaab hmm. ni ko kenn xam ni moo tax misin bii dem ci géej gi laaj bii nga laaj am na parenthèse laa defoon pour indil la lii waaw ngir la dafa xamanteeg sin bi xam nga koo yàggal xam te koo yàggalee noonu ci raw moo tax seexi ba oh. kenn dégg seen tubaab la maam rëy seexi bi wur laa jaaxal ndax ki ko rëy la tax seen tubaab seen tubaab nga koy natt seen bi moo rëyee noo xam ni lu ne la seen bi mën na ko rek waroo ko weer ndax ndax lim jot a defa tax waaw waaw yow tamit jàng fi amoon ak jàngale nekk lislaam di góorgóorlu waaye jël nit mu dina liggéey yaa nga xëy na ko gërëm naa la doo ko takkalub dara doo ko joxub téere doo ko jox mu gërëm naa la demal def naa ci yow li dëkk bu mu romb ñoo ñu daal di daj ci moom ànd ak moom mu dem te dëkk ba njaay nga xam ne bi mu moo bàyyam a ko bokkoon njaayam ngay gën ko bàyyam comme boo watee njaayam ngay wuyoo bu ñëwee ci dëkk bi day fatu bu fatoo kenn du ko fëgg kenn du liggéey bi def ci biir façon moom sin dégg dégg bu paree ci da ngay fatu kenn du la fëgg dañuy toog ba ñaan sin du ubbeegul soo ubbee benn koo koy am ciy toog gaa yëpp ci suuf la ñu toog toog di la xaar te dañ lay xaaraa nekk seen alal kat nag boo dikkee la koy jox ne ci jooy yaa a sant waaye dañ lay sant jox la ba naan sant naa ne tey sama siyaar bi ni mu neexe da ah. ngi dégg seen bi la nga ne sama affaire baax na ah. seen bi baax ko fii ah, waaw yow la yow yow yow yow yow yow yow ñepp bokk jenn yàlla bi yàlla sax ñepp mm. nga dem ba yow yàlla jooju wóoratu ci sa bopp boo ci amee soxla ci sindi wéetu dafa ñaanal ma ci yàlla bi te yàlla ji moo la moom moom waaye mu wóoru ci sa bopp sëñ bi bàpp fendi la wax da ngi dégg sëñ bi lim dafa tax lu mu def nga tudd sëñ bi lim man na koo def da ngi dégg def daa bokk sa ki wax am naa darajee sàngam ci yàlla comme neex wax ko waaye ku man da ngay def sëñ bi daal lim defee ñu aramul nag kenn sibu ko man defar rek da ngi dégg dama ni siis boo xam ni ca toogee kenn du la coup d'état hmm. kenn du la bëgg a doon kenn du la bëgg a doon lu waaye baax lu jox la ko te ñu lay jox amul audit kenn du la laaj foo ko jëmee hmm. siis boobu suñu tabax mën a créé mooy siis xarit national bi boo ko teg si siis national bi chaque jour nga dégg milliards yi fu mu dugg hmm. ana milliards yi ñu ngi barab sàngam yàq nañ alal bi hmm. suñu alal la ñuy foye seen mën taxaa li ñu jot ci milliards ñun mënuñu ko jox laaluñ ko fu mu jëm almet lañ ciy teg sax bu ko taaloon sax ñu gis waaw te te problème yi am ñëpp xaalis ba feeñ noonu ku ko mën a créer ci àddina ñëpp teg ci bët kooku la mën na ko wala ko wala déedéet def na buur ci àddina waaw ñëpp gis waaw nguur koo xam ne daa ànd ak leew liñ lay jox ñoo di jooy waaw sa waay sëñ Tuubaa <laughs> loolu yàlla na Fall waaw moom la xamee sëñ bi moo tax sëñ bi day dem ci géej gi bokkoon na ca ba dalaya nag soxna Fatou Fatou Mbam mooy wajuru suñu bés yi bàyyi suñu mën taxam mbaam yi na mu toll ci wattaay li soxna yi toll suñ tubaa battal ne su amee doom ju ma ko tuddee yonent bi mooy Mouhamadul Bachir su amee doom ju jigéen nag ñii dañ ne mu wax ne niñ ma ko tuddal soxna Xadijatu ñii ne niñ ma ko tuddal soxna sax ñii ne soxna jaari ci bu ana nay seen yaram lay wuyu ko mu ko jadi ke lu wax batale nak lu batale bokk ni batale yi day soxna fatimatu mam so amé gam bu de gor ni ko ko tudé yoonte bi takante ko al bashir muhammad bin bashir muhammad borom ndigni adi begni bu de jigen nak soxna sa soxna khadija fa soxna jaar tunday mu ya yaram lay lu ñu ko wax waaw mu ne waaw góor la njëkk a wax de mu ne ko góor lay doon de sëñ Bamba lu mu njëkk a waxee am pour wax la ni nag réalisation la ci moom ah. avant sëñ Basiiru mii di gën a jamono mu am fi doom ju góor moom tuddi ko sëñ Basiiru ma juddoogul sëñ Basiiru Fallou Cheikh la sëñ Basiru sëñ Tuubaa lañ ko tuddee te moo ko man man sa turandoo coono sëñ Tuubaa waaw waaw léegi mi def lii te loolu lu ñëpp teg bët la ñëpp a xam sëñ Basiru Fall ñëpp a xam sëñ Basiru euh, sëñ Tuubaa a xam mm-hmm. wut toon tax ñu maandu ci Cheikh Ibrahima xam ne moom sëñ Tuubaa du moroom ah? a xam ma ko wala ngeen bëgg ko ngir bëgg nga bëgg fi ma bëgg waaw surtout boobu sëñ Tuubaa daa bëgg ne Seex Ibrahima yoon ndax loolay tax jariñ ci sëñ Tuubaa sëñ bi moom bala ngaa jariñ ci moom bëgg xeeti njëriñ yi ni jariñ ci sëñ Tuubaa yëpp bi ci féete kaw mooy sopp sëñ bi tax gisoo sàcc murit saalix amul gëm sëñ bi yaa ngi amul topp bi ci gëm ci gëm ci ci islam ci ndax daa xam ne yëpp dajale ci sëriñ bi fu sant mu sa tàmbale asiq ko fii mahabbati acheikh abat mahabba dañuy murit élément bu njëkk a soxla pour doon saare sëriñ bi baaxate mooy sopp sëriñ bi bëgg ko ba sopp ko faaw fii yëgu goo cofeel ci sa digganteeg sëriñ bi yow sax murit moom démarré bu foofu loolay démarrage bi auto première bi ngay dugal mooy bëgg sëriñ bi moom moo tax koo xam ne dimbali na ba nga bëgg sëñ bi mm-hmm. ngay xoole ba gaay naan ab dof ga nangul oh. bëgg sëñ bi baa kuñ ci wooy ab dof kan na bi bu ci kenn complexe yàllaa ko a bi toog de ko loolu sax ci baabu murid dina la ko ndax li ngeen di wax lépp day ko li mbax bëgg sëriñ bi moo ubbi sàtt mm-hmm. bi mu ci waxal sëñ nekk dane ko dëgg dëgg murid mooy bëgg sëriñ bi ñëpp a yëngu ci sopp doog ni ko tey jëf ci moom. Hmm. dafoo toll di ko waxtaan. Hmm. bëgg sëñ bi mënta ñàkk ko nekk de murit pour nga doon murit hmm. faaw nga sopp sëñ Tuubaa faaw nga bëgg sëñ Tuubaa doo ko doon murit yaa ngi a baat boobu sax mooy muridullahi ki bëgg yàlla boo demee ba yëg ci siñ bi yàlla booba ngay doon doog a doon mbir li tax ngay xam siñ beeg yàlla doy na wax mhm. siñ bi dana muri dullaay ñen na ma dem ci yàlla woo mhm. nga wuy si mu ne jàng satt mu ne sari xanaa daa waroon wax ne bi ci jiitu mooy bëgg yàlla waaye bëgg siñ bi <laughs> kon siñ beeg yàlla mat naa seet barke siñ bi nga dégg de te siñ tubaab du jaawale nag déedéet waaw fa laa ñu waroon nekk as cheikh dafa dugal xam na lu tax mhm. waaye xaju fi yaa ngi dégg asib fi mahabat cheikh ala kon bëgg sëriñ bi mooy premier élément mu te ku la ci raw nag moo la gën moo la raw sëñ Tuubaa nee na cofeel googu kenn ku ko defal sa bopp mooy cër yi gën a màgg ci yàlla joxe wa afdalul xisaali hubbun fil jalil wa fil rasulihi bihi nimal xalil sëñ Tuubaa nee li yàlla may jaam yëpp vérifié naa ko lu ne xam naa nam toll waaye cofeel ci sëriñ bi ëpp lool al hubbu xayru ma li sax si muhiba wala wa ka misli min al ardi sahaba dana suuf ba mu fees dana wuus ku ko yàlla ba nga defee ne yow mi may benn tomb ci sopp ko moom yàlla ak sëriñ bi yàqal bëgg siñ ba ma la siñ saa yow daa am ku ñëw vraiment bëgg woon sax li siñ ci ba bëgg ak bëgg siñ bi ngi gën a daal siñ ko dégg naa mu ngi nii bu yàgg siñ bi gën mu ngi histoire ne la nga doon wax bi laay ma xam la ci kilifa yi man rek sax yi ak ko ko dégg bu mu waaw ah, Mbacke bi damay la ma doon ñaan rek ma waaw su dee sax ci ndigal sëriñ bi moom fexe la xam li sëriñ Tuubaa bëgg te ko jàngale ko nga jéem caa teg sa tànk te tax koo te tax koo loola. amaa nag bu njëkk bi nag muy bëgg ko loolu garaat la moo koy defal koo soow du lu nuy fàggu ko fàggu waaw loolu nga xam ne nag mënee su koo fàggu te mën a doon lu tàmmoo sëriñ Tuubaa ne nag bëgg leen Ibra Faal ngir li ma bëgg kon moom confirmé ni Ibra mu am na mu bëgg la ko te kat gaa yi naan la yaa bëgg sëñ bi bokk te sëñ bi ne bëgg nga ko de gaa yi dañoo rafet njort sëñ bi yàqin ci lay dox lu mu wax dëgg la gaa yi mën na noonu rafet njort ci lu amul waaye ko sëñ Tuubaa ne bëgg nga ma bëgg ko bëgg leen Ibra Fall ngeen li ma bëgg kon dañoo confirmer ak bëgg benn baa ngeen bëgg Ibra Fall ngir li ma ko bëgg bëgg sëñ bi damuy baax baax mu bëgg la ko sëñ Tuubaa seere ni daa bëgg Ibra Fall kon hmm. waaw ko sëñ Tuubaa bëgg nañu seet ci moom sëñ kon ku bëgg Sëñ Tuubaa rek amatul si rawatina ko Sëñ bëgg parce que xam nga lu tax Sëñ bëgg lu dul yàlla ko ku bëgg da ngaa dugg te biir yàlla daal wélan dëjë parce que boo ca nekk nag moo mën a seet waaye yàgg ndax lu bëggaale la nee nag yàlla maa mahabatiyal muxbaara sayyidina hubbul maqaani wal aqini wal <laughs> barada confirmé ne naa bëgg Sëñ Tuubaa waaye eh, bi ñu topp nga nag raaw bëgg leen bëgg maa mooy pour ngeen dooni muy sax waaw ngeen bëgg Sëñ Tuubaa ndax boo moom Sëñ Tuubaa da ngeen bëgg maa koo koy murit gi. bi mooy euh, bu njëkk gaa ñi dañ daan jaamu ay xërëm mhm. mun naa sax bañ wax xërëm waaye mhm. euh, xeer yeen daan jaamook mhm. statue yeen daan jaamook yu ni mel lépp ay xeer li ko waraloon ba yonent bi ñëw dàq loolu lépp te tey kuy dem màkk daanaka yuni ni mel rek ngay def ute gi li waral suñu borom bañoon ko fee ba pare nangu ko fii laa bëgg laa bëgg nga leeral ñu ci loolu li ko indi mooy yàlla far mu jëf ñuru hmm. li ko ñor mooy ñu nangul ko yàlla li jariñ da am def yëpp kun di jaamu bëgg hmm. lu toll sax fatal xay ko mbindeef yëpp suñu àndoon di mooy yàlla kenn du ko jàmm wàññiwu ci kon ni tarfatal ci nguurub yàlla hmm. kon li mu yàlla digal ñu di ko def ak ko bàyyi hmm. lenn doomu la ci mooy xool ba xam nangul nañ ko wala déet hmm. kon nangul gi nuy nangul yàlla moo ñu yàlla waaye yàlla yóbbu ci sunu jàmm bi capacité wàññiwul ci sunu mooy capacité ay dégg day ak maanaam lu yokk du wàññi ko ndax kamaal léegi nag looloo tax suñu borom nangul ko moo am ma gis nga ndigal amul forom lii mu laaj nii man naa la ndax yéefar ya daa bokkoon te nan doon jaamoo ay xërëm ay istati tabax ay xeer di ko jaam maam Ibrahima sax ca la fekkoon way jur mu góor mu bokkoon ci nga dàqoon a tabax wàllu googu ca dëkk ba nga xam ne istati yi ca bare bare boo ko daa tabax alxuraan ni nekk ni ba mu ñëwee yàq yëf yëpp moom moom yi yam doon yàq yooyu yëpp yun tabaxoon na teg ko nga xam ne dégg nga ci alxuraan waxi nga xam ni foofu moo indi woon sax eh, eh, sawaraam sax loolu ku xam ko mm-hmm. kan mooy def lii suñu yàlla yi alihatina yaa ibrahim xaala bal faxalahu kabiruhu asa fasaluhum in kaanu yantikuun farajahu ila anfusihim fa xaalu innakum antum salimun suma nukkisoo ala ruusihim laqad xalimta ma haulay yantikuun xaala afa taxbuduuna min dunillah maa laa yanfa'ukum shay'an wa laa yadurrukum wa uffin lakum wa limaa ta'buduun min duunillaahi afalaa ta'qiluun qaaluu harriquuhu wansuruu aalihatakum wa in kuntum faa'iiliin qul yaa naaru kuunii bardan wa salaaman alaa ibraahiim wa araaduu bihi kaydan fajaʿalnaahum minal axsariin yaani man faala haada bi aalihatinaa yaa Ibrahim ndox ci tàmbalee. xaala bal faaluhu kabiiruhum loolu. kon ay tabax lañ yoroon ay istati di ko raayee jàpp ko seen i yàlla yàlla na tuub yéen ak li ngeen di jaamu su ngeen ci jugu dem sawara Ibrahima ne moo li ngeen di jaamoo loolu mënta jariñ mënu leen a lor ndax xeer yi seen borom mm-hmm. di ko raaye ko di lépp yéen bi salaa salaam bi mu ñëwee fekk na ci kaw kaaba gi ñetti téeméer yàlla ak lu topp ci ay ay ya bi indi waxul al wa al inna al baatila kaana sahuqa Seydina Ali yu ko tungom mu yar yatam ma di wax waxul al wa al inna al baatila kaana sahuqa di mabbu xeer yaa istati yaa xam nga lu taxoon mu bon mm. ndigal yàlla néew ca ñooñu nag ñoo dem ba wuy su woote bi yonent bi yàlla gindi leen ba mbokk ci biir lislaam mm. doon ay jullit suñu borom wëlbati ko waat sàkkaati xeer mm. formé waat ko comme forme yu nuroog forme yawoon joxe ci ndigal tey mu doon jaamu yàlla te bu njëkk moo doonoon ak mooy yàlla xoolal yi ma lay wax màkk lañ jóge barki démb ah. fonki ak du wër kaaba kaaba ga aw xeer la Safa Marwa nag doo traversé ay xeer. Ah. xuru banil masil doo traversé ay xeer. Hmm. waaw ñi dem Arafa nag yënduwuñ ci kawu xeer. Ah. sànni jamra nag jëloo ay xeer di sànni ci kawi xeer. Ah. nga xam ne ci ngay def ñetti sànni yi nga xam ne ci nekk juróom-ñaari xeer la ngay sànni ci kawi xeer. loolu bu ñu war a ndigalu yàlla. waxuma la jaamu këram waaye yëfi daf la. wëru xeer. كوني خيرك ترى غير سي خير يا نتا كاي خير <laughs> فري خير دسا نتا كاي خير فا ديفول في رك صافور جوتي لا سوا ديفنا لا نيا نتا في دو خير ني اك سرا وي خير يا نتا خير واي لان موتاخ يالا ديف نيو لي تاخ مو ديبلي كوكو نيا موي نديغال بي بو نك باني راي خير يا يالا نا تو اوفيل لاكم تاي غي ديم فون حاجه الاسور يالا ني اسكي لوتاخ بي يون نديغال موتاخ لي ديف ركز موتاخ جيف دي ndigalul yàlla li mooy jariñ ab jullit moo ñor yàlla xam nga noo koy xamee mm-hmm. jëf ju ne intention bi rek mooy njariñ mm-hmm. te intention bi mooy li la ci yàlla digal nga def ko noonu mm-hmm. ni ñuy tudde jàpp jàpp ak jàmm cër yi ni raxas ci jàpp yëpp boo ko raxasoon te yéene woo jàpp man ma raxas cër yooyu yéene jàpp yow da ngaa man ma jàpp te bokk lu mu def koor boo jàppoon six heures bàyyi lekk dix-neuf heures nga tàmbaliwaat te yéene koor كي جرف لا خيال عام كي ام بو كان يبقى كل الناس كون لي لي لي لي لي لي سوف يجي دي مو ييري ما تسمي على عباده النوحاني عباده الساهره وعباده الباطنه فالاولى هي الاحمال wasaaniyatu hiya anniyatu almaanihatu a alxurur def doo gis ñaari taxawaay la forme bi ak principe bi forme bi mooy liy feeñ principe bi mooy la ko lal ci biir daane forme bi nag du jëf ji hmm. la tax jëf ji jub mooy àtte jëf ji moo tax mu baax baamu bon moo tax yàlla forme yi ñëru ko ndigal li ko jub julli jot nga dem di julli lu tax yàlla digle julli nga nangul ko ko hmm. yàlla digle koor nga bàyyi lekk nangul ko yàlla digle ak nga man ko dem nangul ko ko mhm. nangul ko ngay nangul yàlla nangoo jëfi ndigalam mi loolu moo yàlla waaye yàlla ay ay yàlla soxla wut quantité mhm. qualité bi te qualité bi mooy nangul bi nga koy nangul sa xol loolu moo tudd sellal mooy ndigal bi mhm. li tax nga xam ndigal rek am solo lu dul ndigal amu solo avant yonent bi feeñ alxuraan ay wax dafa lu mu def ci alxuraan laa la koy man réew mi dañoo mën fi ne boo nee film bi neen dañaan déggal mbir yi. da nga dégg moom kenn mënut dara. dëgg la. <laughs> te moom nag ñu gëmee ni lañ gëmee waxi waaye nag loolu ñëpp yëpp. amaan sëñ Tuubaa du sëñ Tuubaa amul lu ma gëmut loo ko wax ci sëñ bi mu rëy rëy naa. bu ma ko xamul sax gëm naa. man daal lu rëy la ma kenn mënut a wax sëñ ba rëy ci ma. Mm-hmm. ndax la la la ma ko jàppee loola du ma ko wax sax nag. da nga dégg mm-hmm. ndax dañ naan dof na. waaye ndigal rek am solo ni mm-hmm. nga xam ne ndigal alxuraan dafa dagandaloo ñaar ñu bokk ndey ak baay bi takkante mhm. wa antan moom bayna luxtayni ilaa maa qad salafa ñoo ko jàng xurrimat mhm. alaykum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وحماتكم وقالاتكم وبنات اللق وبنات اللخت وأمهاتكم اللاتي لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من نسلابكم وأن تنبهوا بين اللختين إلى ما قد صرفت إن الله كان قد رحيما yàlla lii ñun war a ba ta dafa wax ni ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi nag daganoon na ñu takkante laata lislaam jii di feeñ mm-hmm. ci jamono imaam adama mm-hmm. ñu bokk ndey bokk bàyyi yàlla la digle naa ko man dina takkante booba boo ko aw yiw la taraanga la lu baax la mm-hmm. lu tax ndigalu ñun nag biñ dikkee ba rasulullah ñu ni ko tey boo ko defee lu bon la bu njëkk la baaxoon tey mu bon kon nekkete baax ak bon sax amul ci yàlla xam nga dafa am lu mu nangoog lu mu bañ kon nekkete ndigal rek am woon moo tax mu baax ah. bii da koo digleetul moo tax baaxul kon nekkete forme bi amul solo principe bi am solo mooy ndigalu yàlla bi moo tax ndigal rek am solo daal nañ si ci faw ñu dëpp